ay Aïcha jërë ngeen jëf amati mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ah, seen seen leader bi di people 221 di nuyu kilifa di ne kilifa aada yi di ñaan réew mi di Sénégal yàlla na fi suñu borom dolli jàmm ah, di ñaanal ñi tëdd ci la hôpitaux yi yàlla na leen suñu borom yëkkati yàlla na leen suñu borom may jàmm ak salaam waaye di ñaanal ñi nekk ci prison yi yàlla na leen suñu borom génnee te may leen liberté ak indépendance ba ñu delluwaat seen njaboot waaye di ñaanal ñu tëdd ca barsàq jiital ci sama ndaay ak sama mbaay yàlla na leen yàlla yërëm te jégal leen te xaar leen àjjanay firdawsi alors noonu lay demee à chaque fois di leen toppal actualité ku ne gis na mariage yi nga xamante ne moo am ci semaine bi ñu njëkkee ci kii di mareetu ah di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may njaboot ku barke ci sëyam bi ni waaye di féliciter tamit ki nga xamante ne moo di Sadio Mané di ko jaajëfal baax baax di nuyu waa kër gi yëpp vraiment démb bi ñëwee yaatal nañ parce que mënoon nañ ni bon guy gi yàgg nañ ko xam depuis 2011 ba tey gi ñëw fii woowu ñu mais démb dama ñëw vraiment yaatal ma dugal ma biir néegu Sadio Mané ni ma loo bëgg defal fii sa kër la donc c'est à ma leen di jaajëfal tey nag ba dalal koo xam ne vraiment topp naa ci ba sonn nag dang dangi naa ba sonn nag <laughs> mais tey moom tey dama koo tàcc ci miir bi ah mu nekk koo xam ne vraiment li muy def rafet na lool sénégalais yëpp bëgg koo si tamit bariwul loo koy gis ci mbedd mi bariwul loo koy gis ci réseau yi lu dul liggéeyam ñaru ko muy sagar ah nekk famille sénégalaise sagar maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay guy gi di nuyu waa Sénépipol 221 ak internet yi nga xamante ni ñoo koy seetaan. di nuyu monde entier di nuyu sa caméraman bi. merci mhm, jaajëfal naa la bu baax. am na solo sagar mhm. kii bi tamit xam nga attestation yi des nga jox ma attestation bu zone des fois bu weex. ti mhm. ma dawloo nii tamit. waa xam nga rek euh, feeñ dafa metti te ku mën a moytu wax moytu ko parce que. mën nga wax téeméeri wax satisfaire sénégalais yëpp ñu kontaan nga juum benn yoon duñ la ko baal. Mm-hmm. moo tax wax kenn mënu koo defaraat. Mm-hmm. booy génn rek. day fekk nit ñi namm la nga wax lu am important dem toogaat ci sa ruq mooy gën di génn chaque jour di wax. Mhm. damay daw communication bi. mooy sa secret ba tax sagar duñ ko gis ci yenn ci yenn détails yi. Mhm. sagar duñ ko gis ci yenn jotaay yi keroog maa ngi gis sunu commentaire bi. Mhm. ñu naan xoolal du wax. <laughs> waa xam nga la ñàkk jot rek xam nga boo amee occupation. doo dugg ci ay détails. parce que gis nga sama saal bi gën wàll nga yëpp ay jaay la ay marchandises la macha <laughs> allah kon kooku amul jotu dara. Mhm. lu dul liggéey ut xaalis. Mhm. am na solo ah euh, tey semaine bi ñu gis ñaari mariage célébrité. Mhm. bi ci njëkk muy sa euh, xarit sa mag di Marietu. Mhm. di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may njaboot gu barke. alaamaaleykum euh, Marietu dugg ci néegu sëy keroog bi mu wootee vraiment ñu gis production bi yëpp ñëw ngeen ko dooleel ko. waaw parce que kooku dañ koy ñaanal sëy bu barkeel. njaboot gu barkeel di ñaan yàlla yàlla may jëkkëram doole poos ak mën ko jàppale bu baax ak lépp li nga xamante ni bëgg na ko kooku famille lañ ñun weesu nañu ay collègue de travail famille lañ ñoo mm-hmm. bokk benn famille mm-hmm. muy famille sénégalaise ñun ñëpp fa lañ bàyyeeku mu nekk ku baax mm-hmm. macha allah mariage yu bi tamit dañ koy ñaanal sëy bu barkeel njaboot gu barkeel ndax nee naa sëy ak sëriñ kenn du ko tànnal kenn. Mhm. ku ne yaa koy tànnal sa bopp. Mhm. fa mu xool ba ne foofu la. Mhm. kon foofu la. ndax man mi fi ma xool ba foofu la foofu la. <laughs> d'accord euh, gis nga muy cax ah gis nga muy cax mais dinaa ñëw dinaa ñëw euh, euh, tey ma njëkkee ci Marietou ah. ñu bari naan sëyu célébrité yi du yàgg sëyu célébrité bi sëyu internet lay nekk sëyu TikTok. tey ñu bari di xaar ndax Marietou li muy joué ci rôle bi. ndax dina ko dund ci biir sëyam yow mi nga xam ne yaa ko jege à 100% boo ñu doon wax kuy Marietou. waa nañ bàyyi loolu xam nga ki dugg ko ñaanal sëy bu barkeel mu yàgg fa ba ay sëtam mu maye leen parce que ki dugg ci sëy pour man pare nga pour sëy à mm-hmm. vie mm-hmm. sëy nag dafa nekk loo xamante ne mbiru suñu boroom la mm-hmm. nee naa sëy dem màkk am kër loolu du mbiru nit mbiru kii ci kaw la bu nee fii la war a yem foofu la yem te nañ leen ñaanal bu ñu wax loolu gis nga ko dugg ci sëy nañ ko ñaanal sëy bu barkeel waaye du fa yàgg ak du fa toog non loolu du wax moom sëykat la yaayam sëykat la kon dina sëy ba dee. Mm-hmm. ñun ñuy sëy sëy rek lañ xam. <laughs> pourquoi à chaque fois ñu leen di ñu leen di sànni parce que xam nga leen la artiste day tas ñëpp topp du ñu sëy artiste yi du ñu sëy du ñu nangam. Mm-hmm. ñaata nit ñoo tas dañ leen a xamul parce que écran bi tiimu leen. Mm-hmm. xamuñu kii kii ñaata nit ñoo fi tas. c'est nag boo siiwee noo toll noonu la say mbir di toll. looloo tax. et que ñun ñooy affiché wu tout le temps moo tax suñuy sëy di am ay wax ku ne di ci dugal sa làmmiñ mhm. loolu la rek. Mhm. mais est-ce que nekkul tamit des fois la ñu gis artistes yi seen comportement ñu cling ñu naan artistes yi parce que bu mhm. njëkkaan dañuy wax sëy mooy xëy dem marché togg toppatoo sa njëkkee mais par rapport ak yéen ñu bari dañ naan artistes yi daal xam nga ci lu cling rek la ñu nekk moo tax am jotu sëy. non demeewul noonu sax artiste aar bi aar bi la sëy bi sëy bi la mhm. parce que tamit ak loo am am jànq bu lay toggal des fois nga dugg sa waañ mhm. man sama jànq duma ma toggal sama jëkkër di lekk maa koy toggal mhm. ah waaw bu fekkee ne danga liggéey amoo occasion toog noo jànq bi moo la mën a toggal aha parce que tamit euh, bu sa jëkkër jàppee fii da ngaa war a jàpp fii kër gi daal di neex mais doo toog wéer ko sa bopp lépp euh, sëy célébrité ndax yomb na ah man de yomb na sama côté parce que ni ma daan dundee dara changé wu ci. Mhm. wax dëgg fa yàlla. Mhm. toog sama kër liggéey wàcc toog sama kër. Mhm. defar sama kër toppatoo sama jëkkër. jeex na day metti des fois réseaux sociaux yi gars yi di lijjanti kan mooy jëkkëru sagar. man xam bi ma ñëw ci kër gi maa ngi dégg ngay wax naan ko waajaa ngi nii ñëw na xam naa da nga ko doon mm. bañ ma gis ko mais grand. tôt ou tard naa la génnee pour xale yi parce que tamit grand doo góor benn jabar te kii da laa bëgg a nëbb bañal loolu génnal affiché. non moom jël ci xale yi. moom moom amul problème wax dëgg fa yàlla bëggul feeñ moom moo bëggul feeñ man nee nañ sax tubaab ba ma takk man leen xanaa tubaab du sant mbay nag bàyyi leen ma moom nag amul problème mi ngi may jàppale bu baax a baax si sama liggéey. mettiwul dara teguma benn fitna teguma benn coono mi ngi ma bàyyeeg may tranquille du dëgg mhm. moom moo bëggul feeñ mhm. te man tamit du ma ko affiché wax dëgg fa yàlla mhm. parce que bare na lu tax te booy affiché sa jëkkër ëllëg wax ju am bu ñu ko ci dugalee yow yaa may nit ñi baat bu ñu waxee ci sa jëkkër lu dëgg li gën daal mooy sëy tranquille sëy boo xamante ne sëy bu silencieuse la maa ngi sëy normal daal yaa ngi sëy normal <laughs> euh, d'accord euh, ñu ñëw ci kii nga xamante ne moo di Sadio maane Sadio maane takk takk jabar ah. euh, coow li bari coow li bari Sadio mhm. ki mu takk Sadio dafa bett ñu bari dañu doon xaar Sadio takk ah, benn benn influenceuse wala kenn ku siiw tey Sadio juy yi ni ngay gisee euh, jabaru Sadio Mané ji ci yar beeg dal bi teggin bi aussi. man xam la laa mënul comprendre Sénégal baatu influenceuse luy loolu lu muy tekki <laughs> nañu bàyyi wax influenceur gis nga jabar. Mhm. dañ koy tànn. waaw jëkkër. dañ koy tànn. Mm-hmm. ki xool ba romb ñëpp xool ku yaru kenn kii moo ko doy. Mm-hmm. ak li muy wut ci critère yi li mu jabar ba gis ko ci kooku takk ko mais dañ leen ko ñaanal sëy bu mm-hmm. barkeel. influenceur rek ku siiw ak loolu dara doomu aadama la. ay milliards jëndul ndaw soosu. ndax nit ak noppam la moo ëpp lépp ndax yàlla da ne lu mu bind doomu aadama ko ci gënal. moom la ci gën a fonk. kon moom bu tànnee kii ne moom la bëgg moom la bëgg. Mm-hmm. nañ leen ko ñaanal sëy bu barkeel. Mm-hmm. ndax monsieur Mbaye daa tànn ba gis ma ne man la bëgg. <laughs> mais pourquoi ku siiw. ku siiw mm-hmm. bu bu sëyee rek. lan lendemain bi ba semaine bi yëpp ay coow day am surtout surtout góor ñi parce que man naa ngi dégg bi Sadio a takkee ñu naan waaw jigéenu internet yi jigéenu TikTok yi commencé di xalaat jigéen ñi daal ba sunu jigéen ñi ñu baax lañ. waaw wax boobu man man la gën a metti parce que ñu nekk si TikTok bi pour man sa genre xarit euh, Maam Ndiaye. day jaay day liggéey Mamy Cobra day liggéey ñooñu yàq ñu TikTok bi tooguñu mm. fi di wax kenn lu ñaaw wax dëgg fa yàlla ay affaire kii TikTok la nekk wala kee nekkul fee sëy mm-hmm. mbiru suñu borom la mm-hmm. encore une fois mm-hmm. nit ki lay bëgg bëgg na la ni nga mel kenn ku ci nekk ak noo mënti mel am na ku la bëgg. dëgg say sens la rek du choix. Mm-hmm. say sens la kon ñooñu dañuy liggéey nañ leen góor góorgóorlu. Mm-hmm. ñi nga xam ñoo toog seen kër di commentaire lu négatif nañ défini comme ñooñu ndax ñooñu wan nañ leen yoon. Mm-hmm. nañ dem jënd seen i parfum sax toog di live di jaay. pourquoi pas nga ut loo def. parce que góor ñi léegi takkuñu ku xëy di weeru seen ci seen ginnaaw de da ngay uti ñu uti lu ñu am mottali la nga dolli ci li nga am. Mm-hmm. mais est-ce nekkul tamit euh, bu njëkkoon comme TikTok euh, yéen ni ngeen koy liggéeyee. Mm-hmm. mooy liggéey commerce boo taalee sa live wala ngay posté liggéey tax mais par rapport ak xale yu jigéen ñi léegi TikTok bi ni ñu ko def daanaka euh, bu njëkkoon jigéen lu raar nga daan gis sax ci yenn cëri ci moom mais léegi TikTok bi est-ce que demul tey ba tax ñu bari di xeeb yenn jigéen ñi aussi. waaw guy gi nee naa la éducation. Mm-hmm. du lu ñuy jàngale ci ay université du lu ñuy jàngale ci école éducation sa kër lañ la koy jàngalee nga màggaale ko boo màggee nag ba nekk magum jëmm majeur mm-hmm. yow yaay xool yoon bii nga jaar ci wala yoon bee mm-hmm. yaay xool ci yoonu jub wala yoon bee ku nekk nag sa choix nga am mm-hmm. boo màggee yaay choisir fi ngay jaar rek loolu la rek am na solo taxawaayu jigéen ci société lan la waa jigéen mooy lépp jigéen mooy yaay jigéen mooy tànta jigéen mooy jur imaam jigéen mooy jur wàlliw jigéen mooy lépp yàlla nag bu xoolee ba ne doomu aadama mhm. lépp lu mu bind moo ko ci gënal mhm. boo xoolee nag ba xar ak bëy ëpp la valeur ci réew mi yow la rek mhm. baasu sëy waa baasu sëy mooy xaritoog sa jëkkër bëgg sa jëkkër déggal sa jëkkër toog fi mu la toogloo yem fi mu la yemloo bum la gis ci dara lu manqué wala lu ñàkk fayda déggal ko nag bu ne waaw waaw la bu nee déet déet la. Mm-hmm. Mm-hmm. ci yan anam lañuy lañuy lañuy lañuy tànnee soxna euh, parce que euh, ñu bari tey bu ñu tànn soxna dañ koy tànn ci lu bari waaye ñu bari aussi tamit bu ñu tànn soxna dañ naan léegi jabaru internet. jabo comme ni ma la ko waxee léegi jaboor TikTok euh, soxna ci yan anam lañ koy tànnee. waa ku nekk ak li ngay wër ci nit. Mm-hmm. parce que am na ñoo xamante ne ñu taxawaal la ñuy bëgg. parce que ñooñu ku leen indiwaat ci société bi defar leen dañuy say ba dee. Mm-hmm. am na ci ñoo xamante ne dañuy ñëw bëgg la fekk la nga complet kenn matul. Mm-hmm. kenn matul nul n'est parfait. Mm-hmm. da ngay xool kii nekk ci internet bi parfois sax mooy ëpp diine ka kiy toog ci biir këram. Mm. waaw day am. ñun lu ñu dem tournage tournage boo heure julli jotee da ngay naan nii déedéet du ñoom. Ah. di jàpp dem julli. matale li yàlla wax ci côté boobu. Mhm. suñu paree nekkaat ci leen. gis nga mhm. euh, écran bi day nax nu bari am na ñoo xamante ni boo leen fekkee seen kër naw leen. Mhm. kon bu ñuy bu ñuy bu ñuy juger nit. parce que nit dina diwoo lu mu xeeñut. bu ñuy bu ñuy juger nit yàlla rek moo jegoo juger nit parce que ku nekk la ngay def boo wéetee xam nga ki nga doon ak nit ñi lu ñu wax wax wax boo mm-hmm. wéetee xam nga yaay kan am na solo a mu nekk ci bu mu sëy du ñàkk ñu mm-hmm. waxtaan ci loolu mm-hmm. sagar tey aar maa ngi la koy wax léegi pourquoi tey euh, sa yi nekk ñoo xam ne dañu raar ci aar parce que tey da gis euh, xale yu jigéen ñoo xam ne kas sëg rek ñuy dem. Mhm. mais koñ bi ku wax ñu tontu la sinap bi téye ko euh, par rapport ak yéen fi ngeen toll tey seen niveau kenn du leen dégg ci lu bari lan mooy seen secret ak aar bi naka la dëkkee ci yow aussi. waaw xam nga suñu secret weesuwul éducation de base. Mhm. valeur yi nga xamante ne suñuy parent jox nañu ko. Mhm. donte gisatuñu papa waaye ñu ngi gis yaay ba tey mi ngi mel ni ñu ngi gis papa ak yaay. ndax jomb bu nekkee ci yow doo dugg ci yu bari. parce que ku xool yow xam nga suñu waa kër. sa xarit Karbala ñoom ay daayira rek la ñuy toog. kooku du la sa xarit la ñoom daayira rek la ñu xam suñu ah. waa kër. Ah. Ah. xale bu ndaw boo ko toogee xasis de Serigne Touba mu jàngal la ko. Mm-hmm, mm-hmm. kon éducation dafa am importance ci nit. Mm-hmm. ni nga famille tamit dafa am important ci nit ndax nit da ngay sóoraal lu bari. bul nangoo nekk mbalitu famille. famille boo gis bul nangoo nekk seen mbalit. Mm. danga ngaa màgg fekk say mag jaandi noo jaaral noonu. Mm-hmm. ëllëg kenn du la joxoñ mm-hmm. siiw nag du dara tur la rek. Mm-hmm. te siiw noppalewul dafa metti siiw siiw dafa metti dañ ko bëgg mais dafa metti parce que sa dara du nëbbu doo am vie privée. Ah, tey sagar yow <laughs> boo bëggee tukki tukki sagar boo toogee loo neex ngay ngay loo loo ni allo ñun la wii sagar yow doo dem fenn fay yow bu nit ñi raa doo raa damay fay ba tey yow <laughs> ah, bu bañ ñaax sagar neex na kat bàyyi ma man rus naa fekk nit ñi di rang ci dara sax ma war a dem di di di di di romb nit ñi ran ngay dugg noonu rus naa ko. Hmm. lu nit ñi fay damay fay. et que ki may mag yooyu sax des fois danaan ma non non non non demal mais damay fay. parce que da nga ciy jàpp. waaw kay. Hmm. siiw dafa metti hmm. tournage dafa metti yére boo sol boo ko jëndul day metti ci yaw parce que ki lay solal mënul tout le temps di la solal. te foo dem bëgg ngaa sol lu bees tournage des fois minimum da ngay sol lu cinq cinq yére foo koy jëlee des fois dañ lay jàppale des fois dañ lay jox xaalis solo bi day cëkk. waaw nga gis sponsor yi ku mel ni Clara Fashion da ciy jàpp. waaw mi ngi noonu ku mel ni Kumba Ñang da lay nga daal ci génn nag. génnee sa poos jënd sa yére ku mel ne sama xarit yi tamit dañ may envoyé ay yére sama xarit di nekk extérieur xarit ñaa ngi dégg mu naan waxal ak awa ak awa sarak ta nee na siiw neexul ah waa siiw dafa metti xam nga tax mu metti boo commencé génn rek kenn ku uh-huh. nekk day am kàddu ci yow waaw waa kay te boo amee famille lu bëri danga koy daw doo bëgg kuy wax muy metti sa famille mm-hmm. man sama communication sax dama koy bàyyi xel bu baax parce que ay kilifa dañ may seetaan. Mhm. damay jékki-jékki def communication mu génn. Mhm. ñu woo ma ni nga wax baax na nii nii nangam. Mhm. damay toog ba ci yàgg sama bàjjen Astou Diaw maa ngi koy nuyu. mu ne ma baa xam nga ni bintu sa maam bu doon dund doo feeñ télé ma ne ko ah ndax lan mu ne ma benn jour dañu toog géwélam ñu invité ko RTS. waaw mu ne ko bul dem. sama maam ne ko bul dem ma ne ko sama maam daa fuuy nag wax leen ak moom <laughs> mais sant yàlla parce que ñoom euh, dafa am bu nekk ci ñoom parce que ñoom waa Daaru Salaam lañ maam Cheikh Antaay seen maam ndeysaan sama maam nekk kilifa gu mag. Mhm. xëy na nag aar moom boo nekkee ci banlieue bi. Mhm. boo feccul di nga way. boo woyul di nga théâtre. kay noonu la demee. Euh, ñu gis à chaque fois euh, sagar buy wax benn ñaar day fàttali fameem day wax ci fameem. Mhm. que mu mel ni sagar tey succès bi dabu ko mu bàyyi fameem aussi mu mel ni tey am na loo xamante ni yaa ngi koy am nga biir am nga benn taxawaay ci sa famille mu mel ni à chaque fois aussi tamit loolu am na xel tamit ci côté artiste bi nga nekk. waaw xam nga la ñoom laa am aw ma ñu dul ñoom. aw ma dul sama famille. Euh, lool mm-hmm. ñoom laa màgg seen kanam yarandoo ak ñoom su may waxtaan ak ñoom sax day mel ni samay morom laay waxal te maay caat man maa mujjee juddu. et que boo màggee ci ñoom mel noonu. Mm-hmm. ñu bëgg la am fuñ la teg chaque jour da nga leen di bàyyi xel. Mm-hmm. ndax nit amul lu dul fameem ndax siiw bu la dabee day metti man damaa ñor taab bi gësam indiwu ma. dama jàng li may def depuis may xale ba tey kon succès jaaxalu ma préparé nañ ñu. ci loolu bu baax a baax. ndax nee nañ succès bu la dabee day metti dëgg la waaye da ngay jiitu sa succès. Mhm. ci de famem euh, euh, ma fare ci wew béykat yi sagar vraiment doon na jigéen joo xam ne ku mën góor la ci famem. Mhm. Euh, tey ku xalaat démb donte am na ci loo xam ne mën ko wax ci télé. Mhm. ku xam démb xam tey. gis ne vraiment am na tey foo xamante ni yóbbu nga fa sa famille njàmbaarte googu noonu. waa xam nga dama fekk sama mag yi ñu nekk jigéen yu mën góor. ñu gis ko ci sama yaay. du toog mi ngi jaay fii mi ngi jaay fee samay mag tamit nekk fii ñi nekk di ci àll bi di tukki di mm-hmm. liggéey di di yónnee seen famille mm-hmm. doo bëgg tamit yow ngay liggéey muy yem ci yow ndax sa wërsëg boo ko partagé wul xëy na bu fekkoon lu yem ci yow rek yàlla tuuti la lay jox mais bu la joxee ñaar fukk mm-hmm. dalaa séddale loolu ndax xam na ne mënoo koo lekk ci benn fan il faut nga bokk li nga am ak sa famille ndax ñoom lu ñu am bokk nañ koog man bëgguñu ma xiif bëgguñu ma mar ba ci sa xarit Karbala des fois day jënd seen indil ma ne ma koo nopp ma ne ko yow <laughs> mu jox ma seen bi ma takk ah, sama xarit la mi ngay défendre fii waaw ndax moom foo ko laajee kan mooy sa meilleur ami mu ne la Bintu waaw daf ma bëgg wax nañ ci waaw kay bi may ñëw dama ko woo ni ko ni ko ni ko tey eh, kër ga laa jëm mu ne mhm. ma mu ne ma oh, loolu war naa koo fekkee mu ne ko doon ñëw mu ne ma noo wax dëgg yàlla mënumaa toog Euh, mhm. ngay def émission ak sagar ma toog di ko seetaan xam maa ni mhm. bëgguma mu gis samay rangooñ te boobaa dinaa jooy parce que sama xarit la mu nekk koo xam ne aussi tamit da jàpp ci sama liggéey moom mhm. moom foofu la xaw a tane sagar des <laughs> dara xew mënu ma ee eh, guy gi lii xew na taalal sama nga ñëw mais sagar moom mu ngi noonu daal mu euh, am na solo ah euh, yaa ngi koy wax sànq dund dundinu artiste parce que yaa ngi koy wax sànq ci côté habillement bi ci côté colin gi ci côté ci côté ci côté dund waa dafay metti ci côté solu beeg yooyu mais à part loolu mettiwul parce que ñu ngi liggéey nag di daan suñu doolee du aar bi rek lañu lañ la ñuy toog di xaar di mm-hmm. yaakaar parce que bu fekkee ne loolu la fuñ fu ñor nga dem fu ñorul nga dem mais dañuy toog xool loo xamante ne duñu xool xaalis rek dañuy xool loo xamante ne suñ ci génnee suñu image du yàqu mm. aha ñu xool xaalis bi jar na koom jaru ko ñu daal di dem liggéey mm-hmm. ndax contrat yi mel noonu du chaque jour nga koy am des fois ñu woo ci loo xamante ne da leen day rey sa image da ngay toog ah. muñ waaw. ah des fois dañu lay proposé yu mel nga gañ nga bañ. waaw parce que la bu fekkee ne yenn tournage yi la. da ko da ko dul jar quoi. waaw kay. Mhm. parce que day yàq sa image du ci bari. waaw kay day wàcce niveau bi. waaw ah, kay ñu gis ni sagar aussi tamit. Euh, ah. mu ngi mu ngi commerce. Mhm. Euh, man sax maa doon wax naan xam naa ne commerce bi moom gars dañuy kii nii rek. xam nga bañ gars yi teg leen bët ak di leen ñaan rek waaye ñii am na ci luñ toog mais dañuy mbuboo commerce bi nii rek pour bañ gars yi xam nga tey bu ma déggee Sagaram commerce bi ma ko mën a ñaan <laughs> mais xam naa ne toog nañ ci lu wóor commerce bi aussi tamit. tooguñu si dara sant yàlla rek. Mhm. ni ñuy gisee nii banque ba yàqu lañ def. <laughs> Ah, mais sant yàlla <laughs> soxla yaa ngi faju nànk nànk waaw waaw mhm. Mhm. mu mel ni aussi tamit yaa ngi yëngu ci wàllu commerce waa commerce dama ci yàgg parce que si laa juddu nee naa la. Mhm. sama yaay dama koo fekk mooy commerce samay mag noonu. Mhm. seen place a ngi fee ci côté tali bi. waaw man tamit commerce dama ci yàgg ndax bu ma tourné ba pare rek daanaka du fi def lu bari. Mhm. dellu jëndi bagage ñëw jaay. am na sama xarit yoo xam ne man maa leen di yox ñuy jaayaat. pour am dara. d'accord am na solo euh, tey ma ñëw ci ci ci série bi ah. Mhm. Euh, série bi tey mu nekk série boo xamante ne nii vraiment yombul tey nga gis maison production bu def benn série deuxième saison ba ñuy waajal troisième tey série bi euh, personnage bi lu ngeen incarné la wala lu leen waxtaan ak maison production bi parce que keroog maa ngi dégg soxna Batoor mu ni mu bu ñëwee fi ñuy tourné ñun ñëpp ñoo bokk benn néeg bu ñuy fanaan. Mhm. Mhm. waa xam nga dëkk dëkk lañuy def ndax danañ toog ay neuf mois yoo xamante ne ñun ñooy nekk ensemble di tourné oh. waaw. neuf mois dañ koy nekk ensemble di tourner. personnage moom loolu sa borom kër ak yooyu. mais xam nga man par weekend damay ñëw sama kër. waa mettiwul quoi sama borom kër nekk fi. waaw li mu fay nekk barewul. Mhm. waaw mais mettiwul parce que personnage dañ naan la personnage du sagar lañ la jox léegi nag da ngay xool critères yi nga xamante ne sagar moom lay laaj. Mhm. xale bu reew la xale bu xamul dara la. seytaane la. nangam sangam nitu intérêt nga daal di jël yooyu yëpp jikko yooyu nga jim ko def ci sa bopp pour nga am personnage boobu sagar nii lay doxee sagar nii lay waxee bu meree nii lay ah. mel mm-hmm. su kontaanee nii lay exprimer woo mm-hmm. nga daal di dugg ci sa personage nag mm-hmm. boo duggee ci sa personnage ba moom ko ba mu leer na ne yaa ngi ci après du la jaaxal teg yi moom garaaw taf taf mu daal di jàll <laughs> mais des fois ci personnage boobu noonu ndax des fois doo génn ñu la koy xoolee non loolu nag man nit ñi damay romb ñii ree sagar da nga réew <laughs> ne sagar moo réew waaye bintu dafa yaru <laughs> mais nit ñi moom am nañ compréhension léegi ci affaire série yi nga mhm. xamante ne xam nañ personne mhm. personnage personnalité mhm. et boo paree ci personnage doo ko doxee doo ko waxee aussi mu mel ni tamit série bi yaa ngi fay gérer boo xamante ni vraiment léegi boo duggee ci kër yi looloo fa am da affaire wujje yi euh, des fois doo jékki-jékki sax nit woola ne li ngay gérer vraiment maa ngi ciy gis sama boppam. dama koy dund am na koo xamante ne nee nañ moom njëkke bu mel ni sagar la ñu yor ba sagar lañ ko tuddee seen biir kër <laughs> nee na su bëggee gaaruwaale njëkke bi daan ay mën sagar lu mi seytaane dina tas kër gi <laughs> mais bari na fi moo fi am. mais yaakaar naa ne nag war na leen a yee parce que. Euh, jeeg bu jógee kër yaayam jógee kër papam bàyyi lépp woon ko ginnaaw ne sa famille la bëgg a nekkal sa frère la bëgg a sëyal kooku yaa ko war a jàppale. Mm-hmm. parce que bu génnee di dem sa sag la. Mm-hmm. bu sañsee sa sag la. su waxee sa sag la jàmmal ko rek parce que mi ngi bàyyi seen kër ñëw sa kër di togg di yàq di toppatoo sa frère kooku mënoo koo fay. Mhm. jàppale ko. Mhm. xam ne yow suba di nga dem kër jàmbur sëyi. Mhm. te loolu lépp dañ la koy fay. dëgg la mais tamit su nekkul des fois des fois des fois njëkk yi tamit parce que gis nañ sagar des fois mu xaw banque soxna ba door jaar fee am nu mu ko cempal xam nga des fois est que nekkul tamit. <laughs> goro yi ñooy ñooy ñooy ñooy jënd njëkk yi. waaw est-ce que est-ce que doo leen comprendre fenn sagar xel mi màggut sagar amul xarit sagar amul àndandoo ah. muusul. ci kër gi rek la toog amul faar amul waxaale kooku xel mi dafa tëju hmm. xaalis rek la gis bokkul hmm. ak ki nga xamante ne ne yaa ngi génn yaa ngi demlante yaa ngi dikkalante am hmm. esprit boo xamante ne ubbeeku na bokkut ak sagar d'accord parce que lu dul fullaak fayda fullaak fayda ko gën. d'accord saga dafa immature boo maturé nag yooyu doo ko nangu. d'accord mhm. foofu noonu mu mel ni sax yaa ngi fay jàngale que ni nit kenn du ko tëj. Mhm. comme benn prisonnier. Mhm. comme mu mel ni tëj nit des fois day xaw a tëj xelam. da koy xañ lu bari aussi tamit. ak ñàkk xarit aussi xam nga boo amee xarit da waxtaan ci lu bari nangam ak sangam da la ciy génnee. boo amee xarit bu sincère moo tax may wax. dina la génnee ci lu bari. et nga xam ne. kii di sëy ci kër gi sama sama frère moo ko takk dinaa ko jàppale neneen même bu jubul woon dinaa ko delloose wan ne ko nii la ak nii mais doo ko topp ci xaalis mhm. Mhm. d'accord xarit bu sincère daa mel ni mhm. léegi bareetul de waaw mi ngi am ba tey nag mam xarit yu sincère samay ami d'enfance ba ñuy xale ba tey ñooy ànd ba tey donte gise bi bareetul ñu ngi déggante. Mhm. parce que ku ne boo xëyee dangay ngay uti loo amal sa bopp. ñii ñu ngi sëy ñii tukki nañ. Mhm. mais ba tey ñu ngi ñu ngi jàmm ak salaam wax dëgg fa yàlla. Mhm. lii ma sol sama meilleur ami moom ma ko envoyé. depuis Italie Khady ah, te nee siiw te nee siiw neexul de te daa may sponsor. non kooku xarit la sama xarit la ndax bi ñuy ànd ñun ñaar dara doonul dara. ndeysaan. nelaw bëccëg sax ñoo ko daan defandoo. seen waa kër bëgg ma. Mhm. sunu waa kër bëgg ko. mu bëgg ma ba mu jeex tàkk sama jëkkër day toog ba ci yàgg mu ne kii bu fekkoon da ngeen groupe di xaritoo. Mhm. ñu bëri dinañ ko mereen. Mhm. ci yow. parce que fi ma ak ni mu ma bëggee. te yëgoo succès aussi fàtte leen. non non jamais. Mhm. damaa mën a am ñu ëpp ñooñu. Mhm. ñooñu bi may ànd ak ñoom aw mënuma. ndeysaan tey boo génnee sagar ci mbedd mi eh, day dem ba sax da ngay am jafe-jafe génn succès beeg yooyu noonu noo koy tuddee. waaw man jaaxaluma man damay génn de yow man may baalee saa. <laughs> Ah? laay man damaa kooku dara sax <laughs> damay génn dox sama dox. waaw yëguma man man ay succès yooyu noonu mo star stable la ko gën. waaw damay génn dem marché ndugg su ma amee envie toog fee waxtaan waxtaan bëri fii dàqante dugg sama kër toog. moo yow man lu ma saf <laughs> dama fi nekk di ñoo dee star. dëgg la dëgg la un artiste nan la war a comporter woo ak ak ak ak ak ak dëkkuwaayam ak tundam aussi tamit. waaw xam nga boo boo siwee rek référence nga war a doon. waaw mhm. wàccee sa bopp et nit ñi dañ lay bëgg. te lenn lañ am ci yow muy gis la safoo la ndamoo la tiitaroo mhm. kon bu leen ko xañ mhm. ndax nit ku nekk ki la bëgg jar naa daw ba dee ndax ñi la bañ mhm. ndax nit amul lu ko lu dul ku ko bëgg te ñun ñooy kan ba waruñoo recevoir lu ñu ñu bëgg dëgg la nit dañuy nit suñu wàccee seen bopp ba nañ dama laa bëgg maa la raw rek moo ci xaj dëgg la leen bu baax dëgg tey yenn per yenn personnage yi ci jigéen ñaa ngi koy wax sànq. Mhm. des fois ñu jox la yenn des fois nit proposé la yenn yoo xam ne doo ko joué que mu mel ni tey nit ki ci loo nekk rek même ba ci aar bi war nga cee suuraale sa njaboot ak sa famille bañ a def loo xam ne ëllëg da ngay ñu la ci xeeb aussi. waa xam nga loolu personnage la boo ko mm. incarné pare nga ci. Mm. sans dépend nag yow yaay choisir artiste du ne bugguma du ma joué benn. mais am nga droit ne lii du ko joué. waaw waaw. personne personnage personnalité. boo joué personnage boobu boo nangoo yow yaay joué nangoo nga koo mm-hmm. mais personnage la. Mm-hmm. nañ ko consider comme personnage parce que bu ñuy tourné. Mm-hmm. du ñaar ñuy joué rek a fay nekk équipe ba ngi ci ginnaaw. kii di jël ah. son kii di jël lumière kii di caméra. Ah. régisseur. réalisateur ñëpp a ngi fa personnage la rek uh-huh. mais man moom am na personnage yoo xamante ne du ma ko joué uh-huh. mm-hmm. parce que bu dul dara dama yor jëkkër uh-huh. et que sama naawle la ndax nit duñ la may lépp nga jël lépp sama jëkkër du ma ne amul problème rek lu ma neex def parce que dama koy sédd si lépp lu may def ndax sama naawle la te ku baax la ko am compréhension la mm-hmm. tey yaa ngi koy wax jigéen ju mën góor sàng yaa ngi koy wax vraiment mm-hmm. gisoo papa waaye tey yaa ngi que mun na ne tey sa papa am na foo xam ne taxawoon na la fa man ba ci loo ah. xam ne ma a dugg waxtaan naa ci Karbala mhm. ma ci a dugg mhm. parce que damaa ñàkk ndey koy xoolee que mu mel ni a loo xam ne yaa ngi naan lii su ma su ma ko amoon wala lii su fekkoon sama wayjur waa leen rek moo may manqué si moom mooy su ma liggéeyee ba tey sama kase ma war a jox sama yaay jox ko te duma ko gis damay jël lépp jox sama yaay boole koog nag woo ñi ko wàcceel kaamil ñu ñaanal ko Karbala hmm. xam na li may wax parce que daf ñu taxaw foo xamante ne sam mu kenn mënu ko remplacer ci kaw suuf mais sama yaay fexe na ba jooyu ñu dara ndax jigéen ju mën góor la hmm. lu mu am terale nañu ko lu mu am toggale nañu ko bëggul ñu xiif bëggul ñu mar jooyu ñu dara te fu ma geesoo gis Assane Karbala ak Ousseynou hmm. moo doog ñoom ñoom lu may jooy dëgg taxawu nañ ma fépp. Mhm. bañ na xaw dañ naan ko dangaa reewal bintu. Mhm. daraa sax Assane Karbala da koy jënd dama ko jox. Mhm. naan ma am. comme si man maay seen doom. manqué wu ma dara ci ñoom daal. lenn rek laay manqué muy xool sama papa ndax su ma sañoon bu doon beneen yoon sax benn yoon sax ma gisaat ko. si sama àdduna mais xam naa ne mënul nekk. ma julli di ko ñaanal par rapport ak fi par rapport ak ñu taxaw ak bëgg gim ñu bëgg. yërëm gim ñu yërëm. damay toog ba ci yàgg may tooñ sama jëkkër ma ne ko bu fekkoon sama papa day dund danaa la bintu du sëy ndeysaan mm-hmm. parce que ni mu mel si man la mm-hmm. Mm-hmm. d'accord am na solo xam naa nag foofu du mën a sori parce que waaw dafa sensible soo ko duggee rek xam nga <laughs> te suñu émission bi daa neex xam naa ne émission bi mel ni bëri lu mu koy tourné émission boo xam ne dañuy ñëw firi libre waxtaan waaw mu ngi noonu donc am naa mbégte ci dalal la mu nekk nag nit ku baax nekk koo xamante ni vraiment sama jigéen la. wax dëgg yàlla wallaay des fois dañuy waxtaan ci loo xamante ne nii. dama naan kii est-ce que artiste toog di waxtaan ci succès. mosu ñoo toog aussi tamit di waxtaan ci ay affaire théâtre ak yooyu sax duñ ci wax. heure bu ñuy waxtaan ci wàllu diine. wàllu développement. wàllu liggéey. wàllu nit ak nit à chaque fois ci loolu la ñuy waxtaan mën naa ko seede. parce que tey métier mi doon na métier moo xamante ni. Euh, boo nee salaamaaleykum yaa ngi wut ay àndandoo. boo nee ñaa yaa ngi wut xarit. Mhm. waaye moom yàlla suturaal na ko ba téen a tànkam. Mhm. doo dox ba gis ko fenn doo dox ba dégg ko ci mbedd. c'est mhm. rare. nga koy gis ci yenn yi te lu dul liggéeyam ñoru ko may gërëm famem aussi bu baax di gërëm Karbala. sama xarit la sama sama waay la vraiment day jàpp ci liggéey bi aussi tamit. di leen jaajëfal tey sa euh, mot de la fin booy tàggatoo. waaw maa ngi naan senegal yàlla na fi jàmm dellusiwaat. waat que élection yu ñu jëm nit ñi ek ki gën ci réew mi yàlla na ko yàlla jox réew mi Babacar Ngom laa vote laa àndal Eh, réew mi du pulaaye ginaar <laughs> damay tooñ waa ah. kooku baax la parce que bu nekkee président yow yow jigéen yéen moom xam nga seen ah, benn mbokk tonto du Mamoun daf may safoo sama xaritu yaay la moo tonto Racine Talla ñoom ñëpp samay xaritu yaay lañ et que samay mbokk lañ daanaka waaw ki ki gën ci réew mi daal yàlla na ko fi yàlla teg mhm. te mu doon lu gën mhm. te réew mi ànd ak dal mhm. sedd benn dégât bañ a am maa ngi gërëm ñëpp ñu doon seetaan di gërëm monsieur Mbaye mi nga xamante ne moom bàyyi ba ma def émission bi. di gërëm euh, sama famille ñëpp. Mm-hmm. Mm-hmm. Aïcha mu ngi noonu di leen jaajëfala ah. di gërëm nag ki nga xamante vraiment moo jaar fii parce que li muy wax sànq rek liggéey bi daa metti nekkul chaque jour nga mën a jëndal sa xaalis sol lu nekk. Mm-hmm. mais ñu am sunu ay frères yoo xamante vraiment dañ ci jàpp jàmm laay xaasu couture nga xam ne lépp lu ñuy sol ci yëre olof ah, ci wàllu poos ak lu nekk moo ci jàpp waaye di gërëm nag suñu benn frère bu dëkk Malika di Ndiros style nga xamante ni mooy jaar ci tenue yi di ko jaajëfal numéro téléphone am mu ngi noonu boo ko soxlaa rek boo ko woo incha allah bi dina ci jàpp di gërëm techniciens yi nekkoon ci ligne bi di gërëm am di gërëm ndaama di gërëm booy bi daw dem États-Unis di leen jaajëfalaa ah. di leen jox dig daje suñu yeneen émission fii ci People 221 ngeen jëf